sax sax ca dàkk te lu baax waxtu wu nekk di wax lu baax kem kàttan waxtu nekk def lu baax sa kem kàttan waxtu wu nekk sax ca dàkk te yàlla rek tax nga di ko def loolu kon ñu tàmbalee ci yéene lu baax waxtu wu nekk di wax lu baax sa kem kàttan waxtu nekk def lu baax sa kem kàttan fàggul suñu lépp daja dolli ko nag di sotti rek bi sant sëriñ bi ci wàll yépp ci lépp daja dolli ko di sotti rek mboolem bokk jullit yi mboolem bokki taalibe yi mboolem bokk yi ñu ngi sant ñëpp xam nañ ni yitti ji yitti ji jenn rek la ñu ngi sant ñëpp xam nañ ni yitti ji yitti ji jenn rek la muy ñu taxaw suñu diin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 ñun ñi ko seq ñëpp kenn ku ne xam nañ ne mi ngi ci kem kàttanam di ci di def wartiibam di gëm di gëm sëriñ bi di góorgóorlu bu baax itam suñ suñ diggante bu jëfandikoo suñu diine di jëfandikoo ak taalu la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 suñu borom dana ci loolu ba mu gën a woyof ci nu gën koo mën gën ci gën caa wér suñu pëstéef gën caa rafetu suñu yéene gën caa suñuy jëf suñu kem loolu rek moo nu fi bàyyi alhamdulilahi rabil ngi sant ñëpp góorgóorlu ci ci loolu tabaarakallaahu tawfeexi sëriñ bi yiir na lu ci wàll yépp moo nuy gàttanu moo nuy wommat moo nuy gunge loolu nag nu gën ci rafet jot bu baax ci suñu bopp gën a am xel mu dal bu baax a baax a baax suñu bopp góorgóorlu nag bu baax a baax rek suñu kem kàttan bu nu xeeb dara la ci lu baax waaye bu nu xeeb dara la ci sawaan ba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 gën a nekk ci loolu rek sax ca dàkk sunu kem kàttan teel rek tax ñu ko def ak njukkaliku Sëriñ Tuubaa eh, mu mu ngi leen koy liggéeyale jërë ngeen jëf. intaale suñu ñaan.